ñu jàmmaarloo TV mbokk internetu jëll bi TV ñi nga am ci kontaante ba tey biir géejawaay ah ñëw seet si benn xale benn espoir benn yaakaaru làmb su bëree mu neex su bàkkoo mu neex ñu koy wax Balla 3 Balla 3 nekk ndaanaan di champion gis nañ ko ah ci biir waxtaan bi lépp dinañ ko leeral parce que amateur yi nag dañ ko namm gis nañ ci lim nekkoon ci lim jugee lool la ñu war a waxtaan ak moom lu jëm ci wàllu làmb champion maa lay ziar. ñu ngi doole ziar baax a baax a baax a baax di wax ne onze bi laa bisimilah la jërëjëf Serigne di ñaanal sama papa fa mu tëdd gënal ko fi mu jóge di ñaanal sama waajur bu jigéen yàlla bàyyi ko mu fekkee samay njariñ di Sénégal yëpp di nuyu sama sëriñ sëñ Abdou mu sëñ Fallou di ko ñaanal xam yàlla na fi yàlla bàyyi wu waaw dund dundam daal suñu njëriñ la. sëñ Muntaxa waaw sëñ Abdou Karim. waaw kooku sama papa la sama ah, sëriñ la sama maam la waaw man moom rek laa yaakaar. <laughs> Ah, naa la ci xajal gannaaw. <laughs> mi ngi noonu. di ziare ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp képp koo xamante ni rek. sama combat yi mu jigéen ñaanal nga ma ci. supporter nga ma ci xam nga maa leen di bëggee baax a baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. kan mooy Balla 3. waaw Balla 3 xale bu dëkk Guédiawaye la rek fooyee bëre. mun naa ne dama cee nàmp dama cee def lépp bëre lépp laa ci def lépp namp def si lépp bëre daf ma jaral lu ne waaw bëre daf ma see dama lu nekk bëre barke sëñ bi yàqal ma lu bari tamit aussi waaw moo tax dama war a dama war a lekk bilaay dama war a lekk mu ngi noonu liñ may jiiñ dama ko war a doon carrément anniversaire biñ may jiiñ dama ko war a doon carrément barke sëñ Bamba. Mm. Mm-hmm. gars ñoo la jiñ universel. waaw ñi may jiñ universel xam nga gars yi dañoo jël ay ordinateur mm. waaw ñii mooy loolu man universel la ma gars yi di jiñ eh. lu waaye ñëw ma chargé la. laay la xëy la téléphone bu mën a ñëw nga chargé ko. billaay walaay <laughs> léegi nag dama bëgg a doon xam nga benn solaire rek. su mm. courant coupé ma chargé su courant coupé wul ma chargé. loolu laa bëgg a doon. en tout cas muy la am solo Balla 3 ñu gis nga nekkoon ci ay dynamique de victoire yu doy waar. kay naan Balla 3 Balla 3 mbëri bëri koo ci dékk micro mun la nañ ma jox Balla 3 jamono bi ngay nekk ci dynamique de victoire ak jamono bi ngay mujjee su ma jumul nga tegale deux défaites lan mooy différence waaw am na différence bu bari sooy daanu dañuy teg ne yow sooy daan dañuy teg ne yow sa bopp yaa mu yaa yaa mën ngaa téye àdduna bi mhm. billaay walaay bi ma tegalee sama cinq combats cinq victoire mhm. <laughs> pour man su xam nga su àdduna bi wàccoon mën naa ko téye nii mais soo wàccee soo daanoo ngay xam ni affaire yi métti na defet defet yombul barke sëñ Bamba. billaahi walaay. mais luy différence bi. maanaam ci côté entraînement ci côté mental ci côté staff. parce que bi ngay tegale say cinq victoire ñu gis Balla 3 mais dañoo gis sa sortie mujj bi da ngay ñëw ci géew bi mel ni défaite bi nga jóge woon ba tey dafa nekkoon ci yow. waaw loolu loolu du ñàkk xam nga staff soo fa nekkee am deux personnes yoo xamante ni dañoo wàññeeku. Mm. dalay lay bu baax a baax da lay marqué. dëgg la billaahi ki nga xam ne daan sotti gàllaaj muy Badou mu ndaw maa ngi koy ñaanal fa mu tëdd a rëfu mu jógee bëgguma di wax sax si moom sama combat bi gars yi la ñu ndax si biir moom laa fa daan deseel wax ma li nga xamante ni day toog sama bopp te dama koy bëree sama combat Mama Lamine at sama combat bi yëpp mu mu xam nga mu mu kii ma daal billaahi yaa ma gën a xam loolu bokk na ci li nga xamante ni lu ma gën a lu ma gën a kii la wallaahi dañ daan wax mënuma sa waay maanaam ñi nga daan daan biyee ci war a gën a yomb wala biyee ci war a gën a difficile maanaam moom jëmmam rek seen jëmm rek kii la woon daf ma daan yokk courage bu baax a baax a baax a baax xam nga di leen ñaanal fañ tëdd gën a leen fi ñu jugee mook sama président fan si club kooku moom daanaka nekkul woon président fan si club daf ma daan may xaalis dafa ma daan jox xaalis di ma dem demal si sëriñ fii nii booy suñ demee si 10 heures maanaam 10 heures bi ñoom 10 heures bi dañoo dem ba booy dañ daan xaaral président ñëw mhm. lu billet bi seer da daan jënd bolok wala ñaari bolok oto yi mun leen ñaataay doy mhm. mais sama combat bi ma jógee nii yëg nañ ko ci bu baax a baax a baax mhm. di wax ni yàlla na xippee àjjan yi kayoo rek est-ce que du est-ce que de confiance tamit moo la nga toog ci ay victoire yi am solo ngay bëreeg ñoo xam da nga leen a umpale waaw su ma jiwul matu mi ñëw na bi may préparé ak Maama ñëw na seet si ma fii même bi ñuy dajee sax arène nationale nee naa ko pour man punkal ngeen may indil Géant du cadre excès de confiance ndax bëri naa ñu ko gën a kii defe naa Mama Lamine boîte vocale moo ko gën a diis moo ko gën a oos te maa ko njëkk a daan caatu ndakaaru day xeex ba dugg boîte vocale Aliou Fat la te damay dem ci àll yi di bëri ay punkal parce que te maanaam duñ ma du amoo ci benn difficulté damay ñëw rek jaar fa jàll pour man ñooñu noonu at ñii xam nga mooy loolu wute wuñ de li ku yee xaw a kii rek moo wute mémoire bi lañ dul bàyyi mu chargé wu rek eh. mais bi passé bàyyi nañ mémoire bi changé yàllaa ñëwee ki mbiram ndeysaan muy loolu mais maa leen di bëggee baax ay borom baax la ñëw billaahi mooy sa combat bi nga jógee ak bébé rek rek waaw euh, rek ñu gis ngeen bëre xeex bëri na action yoo xamante ni sax tànte nga ko mais ñëpp dañoo analyser ne danga faa néew doole ñoo du cas du néew doole sax ndax man bi may bëreek euh, bi may bëreek nu mu tee sax euh, bébé rek rek billaahi wallaahi tallaahi ñàkk naa du tax dara tax may wax mais yëguma ci comme doole 100 pour cent. Hmm. billaay walaay action yi nga def yëpp xamul ma ñàkkuloo combat bi. lu ko ñàkkul dama ko dóor uppercut soo seetloo soo seetloo combat bi bi ma ko dóor uppercut tànk daa dem ba tànk bi dee. ci la ci la bëñ bi duggee sama loxo. loxo bi dee maanaam mënutula dóor. Ah, mënutuma cee def dara seen nga. ah ok waaw waaw waaw. mënutuma mënutuma def dara. Mhm. léegi nag ci laa ci laa ni sawaay nag mooy loolu ci la ma profité daa mel ni koo xam ci la profité def def ak ma dotation moo mel ni lu koy mbot. ba bëggoon a am appui ma xam ne loxo mënu ma ko samp ci laa dóori devant bras hmm. surux hmm. dóor épaule. mais boobu lu tax mënoo woon dem ci mercen bi ñu xoolal la ko ndax mën nga bëri wala. benn action bi la même action bi la ah, dama ko dóor épique dama ko dóor épique mu bi baax na. Hmm. dama koy dindi wala ma dóoraat ko épique wala ma génnee ko. wala nga génne ko dëpp mais instant boobu xam na ni épique bi ma ko dóor sama loxo kii na. waaw ndax man saa yu ma ko dóoree maa ngi dégg benn répond bu muy def mooy loolu man duma ni ba rek rek billaay ko jox ndam rek mais ñaanul naa. entraîné naa lu ma ci daj musuma cee daj dañ ma daan journaliste dañ ma daan xas dama entraîné ji. combat yi matu bu ma ko taxawee dafa ne ko su ma simmee ko incha allah naa bëree ba ñëpp xam ne pire la. dëgg la te nga def wax dëgg yàlla. billaahi wallaahi. Mhm. mais bis bisu ñàkk daal saa yi loo def. bisu am barke Serigne Bamba. non. ndeysaan. yàlla baax na. Mhm. barke Serigne Bamba musuma am defet ma mi tey nii. wax naan dalaa ëpp doole nag. non billaahi wallaahi tallaahi santiriwuma cent pour cent ni doole billaahi wallaahi santiriwuma cent pour cent doole lenn laa ci sa lenn laa ci sentir mooy jël naa dóor naa ko foo xamante ni fi ma sama kii baaxul barke yàlla mais amaatul leneen billaahi mhm. muy la am solo donte Bébé Reug daan na la mais teewul tamit yaa ngi sa yoon ñi nga war a bëreel bari na say morom ñi ngi ci làmb ñan nga jàpp ne war nga mën a bëreeg ñoom. man samay morom dañ maa ragal. dañ maa ragal. ragal billaahi wallaahi tallaahi sama morom képp ku jàpp ne mu bala 3 nga ragal ragal maa daf maa ragal. ñëpp képp koo xalaat ne maanaam moromu mu 3 la daf maa daf maa ragal. Hmm. waaw képp ku toog na xalaat ni diw kat war na moog Balla kombala combat la diw moomu tàppen na fii amul gars yi ku doxul suñu combat. Hmm. billaahi sa ban combat lañ mujjee dox <laughs> su ma ko waxee da nga naan sa waay mooy loolu wóor na yaa promoteur woo na proposé ma doomu jàmm gën émission la ma defal nee na su bëggoon bëreeg man bëre bu yàgg mais daa daa fay ay journaliste hmm. journaliste yi ko waaw <laughs> dafa fay ay journaliste ñooñu peleneel ko ah, waaw journaliste yi ndax journaliste ñu naan ko diw muy diw diw journaliste yooyu ngay dajewaat ak ñu naan yii sawaay kii hmm. man am na yoo xamante ni du ma du ma ci kii journaliste yëpp samay xarit lañ mais su ma su ma jëlee combat laaj leen dama leen di bloqué du ma bëgg sax kenn jël ma interview hmm. barki Seydina Mohamed te aw ma ci xàjj ak seen su ma du fekkee seen biir da ngay dañee sax kii journaliste la ñëpp laa siqal jàmm barke yàlla matoo ngi nii si groupe am dama koy fekk ruube ko wóor na yàlla léegi nooy naa ñëw leen gars yi mais mais yow ak doomu jaama gën nag combat la boo xamante ni même moom bu ko bañee yow nga bañ ko amateur yi ñu ko bëgg te yow làmb nga fi nekkal moom mu nekkal fi làmb luñ bëgg yéen ñaar waroo leen ko bañ man bañu ma kenn si mm-hmm. defet laa jógee mm-hmm. suñ ma joxoon bombal sax ma jël mm-hmm. en tout cas mbër bu ñëw pare na pour bëre ak moom nee mat na armée mën de. billaahi gudd rëy jaaxalu ma waxuma laa ndaama rëy. armée deux la mu indil Maama Lamine keroog caaran na solo. loolu dara Maama Lamine Maama Lamine li ma ko teg coono kenn tegu ko coono. Hmm. barki Seydina Mohamed ñaata combat la bëre. Hmm. sama combat moom mu ci diire bi mu paree moo interview ko yàbbi na protestant bi xëxët. nooy nooy waa doo ko wax mhm. billaahi. Mhm. jàmbaar la garmi la ndam bi mu jógee yàlla na ko jik mais barke sëñ Bàmb képp ku ci dajeeg man di nga xeex di nga bëri. Mhm. waaw. mais Armé 2 jóge ci defet bool booli ne ko il faut ñuy takkaat jaaj yi yabaat la ndax tamit da ngaa war a am dara ci làmb. yow nga juge ci défaite est-ce que tamit combat boobu bu ñu ko taxawalee yéen ñaar lan moo leen ci war yéen seen jéem bopp yéen a dugg si koñ bi fekk ñu bis ñu bind fii ñu takk fii yëpp ay morceaux yu xonk seen nga leen nii ñu ngi nii takk ay morceaux yu xonk ndax lan waaw dañoo soxla ndam gaa yi ngi nii takk ay morceaux yu xonk seen nga waaw ñi ñëpp takk ay morceaux ñi dem sol sol t seet yu weex dem sol t yu xonk mhm. yaa ngi mu gën a xam barki sëñ Bamba man koñ bi samay nit lañu mais dañ ma mere damaa xam ne dañ ma mere kon li ma liñ ma meree dama ko war a ratifié jëluma fi kenn koo xamante ni bëgguma sax combat bu nooy nañ ma jox combat bu dëgër ma doomu jàmm gën na ñëw Franc na ñëw. Hmm, saa yi am na dix euh, adversaires yoo xamante ni ah ku ci ñëw ñu bëre. Hmm. man nekkuma maa ëpp adversaire ci làmb ji. waaw même yow ak Franc tamit combat la parce que dafa dugg biir géejawaay ñu daan ko ah rakku la bi daan ko. tey mu war a dugg bu la jëlee tamit day duggaat biir géejawaay loolu tamit combat bu neex la mu daanuwaat mu daanuwaat waaw ñi hmm. nga <laughs> est-ce que mu géejawaay mën nañu ko daan ñaari yoon <laughs> Franc doom parcelle la jamono ji léegoo li ma la wax ñoom ñoo la gën a xam ne Balla 3 ku mu jëlaat day day ko day kii day ratifié bu baax a baax a baax hmm. ñoom ñoo la ko gën a xam moo tax ñi may def nii hmm. wallaahi ñoom ñoo la ko gën a xam moo tax instant bi nii punkal yi ñoom ñooñ ñuy daw voilà man nag soo gisee may jël boo yi ma tollool ñoom ñoom ñoom ñemewul moo tax beneen saa may xool lu toll lu ëpp quatre-vingts kilos ma dem jël ko. Mm-hmm. Maama Lamine quinze kilos la ma ëppalee rek est que du vingt kilos. Mm. man lijjanti mu ay poids yi xam la laa lijjanti. naat bi gën suñu diggante dañuy jaar di yëf yëfi góor. waay la xëy la barke ah, yàlla en am na solo Balla 3 li nga wax moom yaakaar naa ni leer na mais ñi ngi fi tudd wala man ñi ma fi tudd ñëpp say adversaire lañ xam nga. ndax tey euh, ki nga xamante ni moom mooy moom moom mooy kii euh, nu mu tuddati euh, mbër mi ñu wax léegi armée yow moom combat la wax dëgg fa yàlla parce que da ngeen bokk ki leen daan ba pare tolloo yéen ñaar da ngay day mobiliser yow tamit ngay ngay ngay ngay ngay mobiliser Franc Mbeur tamit yéen ñaar tamit combat la doomu jàmm gën tamit yéen ñaar tamit combat la. mais nag doo doomu jàmm gën boobu soqeeku na kay. moom nga gën a soxla. billaahi. ak riiram doomu jàmm gën. man loo tax mu bëgg ko mooy ñi taxaw fi naan mënut a nekk ak lii ak ñi muy fay ñuy wax ñuy waxtaan ak moom. Hmm. waaw am na ñoo soo duggee ci groupe bi ne doomu jaamu gën ñu ñu ñu ngi dëkk ba Grand Yoff. Hmm. billaahi mais mafia bee dëgër rek. billaahi maa kopp mafia. barki Serigne Bamba Mbacke. jàmm gën jag saaw si kan waay eh, sa waay. maa bëggoon ñu dem di bëri ji maa bëggoon ñu dem di bëri ji Gàmbi nga xool. Hmm. wala ñuy bëri ji Mbuur wala fen lay xam kan mooy borom àll bi. wala kan moo fa mafia. Badou yaa raatale àll bi. wala trois doomu géejawaay bon malheureusement bi ngeen ñëwee ci ngoon gi nii mais suba gi kii dafa ne moon dix heures onze heures comme ñu dafa feesoon dell mais xam nga rek yaa ma jaama pexem yàlla ak dogalam mais barke Seydina wa gaayat ngir yàlla ak yonent nooy naa hmm. xeexatuma bëreetuma eh. waaw non loolu mënul ñàkk parce que euh, mook mook doomu jàmm gën combat bu neex la te promoteurs yi ñëw leen seet si Balla 3 ak doomu jàmm ga ndax dañoo bëgg tamit xale yi di bëre seen biir di bëreeg ñoo a mag xam kan mooy man hmm. bi may daan Aliou Fatfat moo bëre deuxième combat bi Aliou Fatfat bi ma daanee pare dafa ñëw taxaw ne ma yow ki nga daan xam nga ko ma ne ko sa waay waaw ma ne ko si grand combat sax suñu ñëwee ma tëral leen ñu bokkaat journée bii ñoo bokkoon fi ñu doon saa yi signature ñooy bokk fi ñuy toog simictaake bi ñoo ñoo dende mais daf may kaañ ma koy kaañ mm-hmm. am na boo xamante ne boo ñëwee ne ko sawaay mm-hmm. wuy ma waaw ne ko baal ma daan ga daan ñu daje ci kaw mm-hmm. mu ree tontu ma nag ba tay xaw ma lu tax nag eh. waaw tontu ma ba tey doon def code rek pour bëgg a bàyyi ba génn ci combat bi mu dugg waaw léegi génn ci combat mm. ah, la mais yow daal pare nga mbaa promoteur duñ la woo tamit nga naan noo su leen neexee na matu bala trois fii ngay waxee de matu na ko nañ ko envoyé avance bi eh, ñu jox ko matu déggoo li ma la wax suñ joxoon booy bi déggoo suñ joxoon papa mi avance bi laa wax na ko indi barke sëñ yaa wax loolu man instant mm-hmm. amul lenn lu may sowa billaahi amul mm-hmm. lenn lu may sowa wallaahi instant yi damaa amee bor boo xam ne du ma si gi xool nit sama waa koñ ndax moso yu yi dañ may dañ may dañ may déranger ndeysaan te dafa war a deñ billaahi nekk yi weex yée en tout cas mbokk yi ah xale boo am jom la ku am détermination la parce que daanu ba pare di dox ne warumaa daanu damaa war a bëre waak daan tamit borom jom rek moom moo koy def ah lu duuf si nag li xajul ci cin li ndax ku ne xam ne ni day waajal dem entraînement yitte yi tamit day bari gis nga ko suba si lañ ko programme woon sa fansam sam supporter am yëpp ne fi gis nga ko xam rek ñu nag suñuy dugg dugg ci ruq-ruqaat yi moo waral ñu ñëw heure bi dañ lay bàyyi nga tàggatoo ndax combat yi moom à travers émission bi ci kattanu yàlla lancé nañ appel promoteur yooyu pour ñu taxawal ko bu ko defee nga mën a bëre parce que da ngaa xale nga da ngaa bokk ah tamba mafia bantambaay suñ may kaañoo fii eh. dooy wax da ngay taal sama moto rek avancé loolu moo ma jikkat di ndax instant bi amul lenn suñ ma nee wax a laay wax billaahi mosa ruus yeeg yaa ma gën a xam mm-hmm. mais di xam nga di bëggee waat di bëggee waat ñi ma xam nga ñi ma jàppale sama combat mm. suñ waa kër fii xale bu ndaw ba ba ba maam mm. barki Seydina Mohamed sama maanaam ñëpp maa leen gënal seen seen doom yi duñ jur billaahi xam nga waxee indi wax ji nga grand bi di ne moo njëkk a ñëw ne ma <laughs> am nga combat mais bërikat nga yàlla na yàlla may ndam mais après li mu ma doon wax gis naa ko mais sama gaale sama sama kër maam laa nekk mais barki Seydina Mohamed man lañ gën a bëgg ni sax seen doom yi ñu jur billaay walaay sama nijaay yi sama yëmpaañ sama doomu nijaay yi góor jigéen mag ak ndaw soo limee da ngay juum waaw mais ñëpp maa ngi leen di ziare bu baax a baax a baax a baax di leen tubaab di leen jégluwaat di leen wax ni bor bi naa leen ko fay ba waa ba ngeen bëgg incha allahu rabbi mhm. xam nga na wala trois doomu jàmba ay waay yaa ngi wala trois armé deux Baba Mbacke gars yi nañ ñëw ñu fi tasu rek eh, nañu ñëw eh, ñu fi tasu xam nga gars yi bee passé dañoo wax lulul yaa bii nañ ñëw fi tasu rek eh, dimbali ma ngel yàlla ndax waxkat bii nii noppi seen ngeen ko <laughs> jërëjëf ruus ay doom ay morso ruus koñ bi nii waaw xam nga mooy loolu barki yàlla yokk jom yée billaahi waaw di ñaanal xam nga di di di di bëggewaat di di nuyu ñi nga xam ne ñoo ma doon ñaanal sama combat bi ñi ma ñaanal sama combat bi maa ngi leen di bëgg waa sëñ seexu naa maa ngi lay ziare bu baax kom bi gis naa si ñaan gi nga ci def Baye Saliou aw ma sa fay Siteu bu Balla 3 daf maa mere ndax man su ma toogee dama dama dama dama bëree pare mm-hmm. ñaari fan dem entraînement ñette fan mu ma noppalul ma noppalu ñaari fan mu mere ma te moo ni ma noppalul mm-hmm. barke sëñ Bamba ma noppalu ñaari fan mu mere ma ma xam ne kon entraînement bi mooy la nii damaa tooy école Balla Gaye ba nii nii soo waxee ñun da ngaa war a noppalu dafa baax ci mbër si defet laa jógee instant bi baal ma dem din ya dem sall dem contact hmm. yi bi kii de wóor na sëñ Bamba en tout cas maa ngi ñëpp hmm. tund jandeer bi Kër Moussa hmm. sama gars yi déplacement lañ def ikiri Kër Moussa jël oto ñëw ndax sama jëmm sama copain euh, nu mu tee sax ñas jóge ba mbuur jóge ba mbuur xam nga jóge ba mbuur barke Serigne Bamba Mbacke ñëw xam nga gars yi daal maanaam saay sama combat bi ñëpp a ma ñëwal barki sëñ Bamba mais xam nga mooy loolu mais nag ñaari booy yi barki Seydina Mohamed combat bi ñoom rek laa doon xalaat ci biir géew bi bi at bi naan day dem var billaahi wallaahi taala li Lamine Golo di wax yëpp ñett ñi laa doon xalaat sama yaay ak ñaar ñii billaahi wallaahi kii yaayam sama doomu nijaay la mais yaayam maanaam su ne ko maa ngi ci man day doxi sax ne ko maa ngi ci baal yaayam ji mooy loolu yaayam tamit noonu su ne ko maa ngi ci mbër billaahi wallaahi mooy loolu dañuy dem sax di jaay seen xaalis ndékki di dem di génnee sarax te yëgu ma ko barki Seydina Mohamed bàyyi ñi daal xam nga yàlla yàlla def xale yu am ñam waaw mais mais daal en tout cas waa gaale bi ma fa yaa Modou Anta sans frontière di ko mm. ñaanal ndam lu rëy incha allahu rabbi ci kaw soleil gaynde Modou Anta sama sama rakk sama xarit sama doom day sama seex xam nga yàlla ko yàlla may ndam mm. waaw mu Mourante yëpp di wax ni géejaay gépp nañ ñëw jàpp si waaw ay Paul Paul bu Lat Diop mais nag du nuyu waa école Balla Gaye hmm. maa ngi leen di di jégalu foofu laa waroon njëkkee école Balla Gaye billaahi wallaahi tallaahi amuñu seen fay muy Koso Lamine Golo hmm. at Papa Mbës hmm. at Père Mbaye Samb at Pam Mamma président billaahi amuñ seen fay gis nañ ñi ngeen ñuy taxawoo mais yàlla baax na. mu ngi noonu di di tamit journaliste yëpp. waaw non waaw. Mhm. li tax lii ma koy mujjee mooy sama yaay tey la anniversaire am. di ko wax ni longue vie à toi. man sama yaay mënu ma wax si moom. di wax ni happy birthday sama yaay. Mhm. waaw mhm. en bëgg naa daal. waaw loolu Diallo. loolu bu loolu bu Serigne Saliou. loolu bu Serigne Saliou démb la woon anniversaire am. Oh, di ko wax happy birthday di ko wax longue vie à toi. yaakaar ku dul Serigne Saliou élevage Serigne waaw di bëgg waat ñëpp aw ma seen fay. cat ba cat. samay lonkoo lañu. fuy rëba léegi mais nag li leen dencal ba day kii yëgul de. ak sëñ Bamba. ay bis bu ma daanee ba fekk journaliste yi. dinaa xool ndax jigéen ñi mën nañoo bëre. Ah. wala journaliste jël leen jargandoo ak ñoom. jërëjëf jërëjëf Balla Toura jërëjëf. xale la gars yi mi ngi ci yoon nañ ko seet si jox ko combat su bëree mu neex su bàkku neex yaakaaru géejawaay la nekk école de lutte Balla Gaye aussi tamit di mobilisant nekk booy bu yaru témoignage yi nga xamante ni jot nañ ko am fii avant ñuy commencer émission bi dafa daw yaram ak xale yi nga xamante ñoo ñëw ndax nee la ku bon xale du ko bëgg xale ku baax rek lay bëgg ak koo xam ne du dóore day yërëm doomu aadama yi kon gars yi jërëjëf rek ak Ndiaga Star tey dugg biir géejawaay